bon yaa ngi may pose sonk Sonko dinaa ci wax tuuti xam naa nag tey moo nekk première fois mais tey aussi mooy nekk dernière fois euh, Ousmane Sonko du du ñu nawloo ñu nawloo ko man personnellement nawloo ma ko bon euh, nit koo xam ne da bëgg a jëlee Sénégal nee nga ci say wax te yow mi yaa gën parce que gisuma la benn yoon nga wax tey bu subaa nga jëlee ci moom Ousmane Sonko wax na ay yoon yooni yoon. tey bu subaa mu génn ci. du dëgg newoon na fi ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci système bi. jamais jusqu'au plus grand jamais bu ñu ak ñoom buñ ko defee ce serait un rétropédalage maanaam dellu ginnaaw la ci ñoom ci ñun ñoom ñoom maanaam ñoom euh, waa Pastef dellu ginnaaw la si ñoom mais il serait même pire que ñi ñuy dénigré ne tey effectivement Ousmane Sonko il est pire que Macky Sall mi muy il est pire que gouvernement bi muy dénigré bis bu Sénégalais yi ba jox ko ay lengeewu Sénégal bu keroog jee danañ mar suñu baaraam bu tax taman yéenewuma loolu Sénégalais te danaa ci def sama kéem kattan danaa ci xar suma tànk tubéy pour que loolu bañ a am loolu benn la euh, xaaral ma ñëw mhm. loolu loolu la euh, ku mel noonu koo xamante ni boo waxee tey bu subaa nga génn ci du jeex newoon na fi France 24 RFI ak yooyu la su ma demee bay def interview ak ñoom maanaam euh, ci place bu ma dugg gis na ñoom maa war a def interview te ñoom ñu nekk fa su boobaa ñoom danañ génn baa man ma génn Ousmane Sonko deful interview ak France 24 pour di victimiser pour di jéem a jaxase président Macky ak àdduna bi est que defe ko waxulu tey bu subaa mu génn ca voilà su nekk ñooñu nga xamante ñoom ñoo nekkoon ci système bi ñooñu nag ñoom ñoo ko wër nii tey maanaam moom fi mu toll nii moo ko lekk Khalifa Sall moo nekk ci wetam dinaa leen wax benn affaire Khalifa Sall du quelqu'un ku ma nawloo man personnellement euh, je vais vous dire en 1987 le président Abdou Diouf avait radié 7000 policiers au Sénégal le Sénégal est resté pendant huit voire neuf mois yoo xamante Sénégal amul police est-ce que xamoon ngeen loolu yéen Sénégal tolloon na fi rek moo fa nekkoon di dox Abdou Diouf dafa radié la police nationale. ñu dàq policier yépp Sénégal amatul police première motion de félicitation bi nga xamante ni nit bind na ko Abdou Diouf pour di ko féliciter pour avoir commis bourde bu toll ni dàq mille per de famille Khalifa Sall moo njëkk bind boobu note bind Abdou Diouf ne ko maa ngi lay féliciter ci courage politique bi nga xam ne moom nga am pour dàq policier yi nit ku am xool boobu nit chef d'état def connerie bu toll ni dàq 7000 pères de famille yow nga am xol bu toll ngay da nga koy féliciter pour avoir radié 7000 personnes vous vous rendez compte nit ku mel noonu tey moom moo ñëw taxaw sunu kanam di seddal kanam ak di lem-lemal di yërëmtalu di victimiser pour lan ñu jox leen réew mi ñoom kan moo ko wëraat Déthié Fall Déthié ci biir réew mi la nekkoon. moom moo nekkoon numéro 2 Idrissa Seck Déthié Fall ànd nañ man ak moom dem jaale ji sunu benn grand euh, biram yàlla na ko yàlla yërëm ba jabaram gaañoo man ak Déthié Fall ñoo àndoon ak Dégol Faye ñi may wax nii mën nañ témoigner li may wax dem jaale ji Déthié faal est-ce xam nga lan moo tax mu budde Idrissa Seck est-ce que xam nga lan moo tax bi ñu ñëwee rallier ci biir gouvernement bi moom mu budde génn c'est parce que ba jatara ministère bi mu yor yaa ngi may dégg Déthié Fall moo ko waroon Idrissa Seck a choisi Yankhoba Diattara à son détriment moom lii la mer poste ministère moo tax Déthié Fall mer parce que ne woon na comme que mooy numéro 2 bi moom moo waroon hérité de sa poste là mais numéro 2 compté li compté mooy compétence président république nee na ñëw leen ñu liggéey dama bëgg am poste ak sangam ak sangam boo xamante ni su fekkee am nga ñu compétent yéen ñu ko mën a doxal ñëw leen ñu àndandoo doxal ko Idrissa Seck avait choisi ñi mu yaakaar nañ ñoo ca compétent Ali Sara Diop moo nekkoon élevage ak euh, Yankhoba Diattara Déthié Fall loolu la mer looloo tax mu génn. poste moo ko intéressé leneen intéressé wu ko leneen li wax ni yëpp yàlla xam na ne ay sóob la je connais très bien ñi may waxal keneen kan moo ko wër ay dëmbët ma carte ma caution da ngeen ko fàtte yéen ñun hmm? fàtte wuñ ko Aïda Mbodj moom moo ne dafay bañ troisième mandat tey plus arrogante que Aïda Mbodj amul ci kaw suuf je défie quiconque koo xamante ni mën naa ñëw indil ma wax ma wax le contraire de ce que j'ai dit plus arrogante que Aïda Mbodj amul elle boobu maa ngi sami national elle m'a dit que naa ko dimbali parce que dafa am benn jarbaatam boo xamante dafa doon football ba dafa damm j'ai envoyé une équipe médicale këram pour que ñu dem récupérer ji sa gosse là pour que ñu dem def le nécessaire la prise en charge bañ pare ci prise en charge boobu ba pare sama gars yi woo ma ne ma pare nañ prise en charge bi mais la maman ñu ngi koy woo mu nekk en communication quelque chose comme ça bi ma insisté plusieurs te pourtant ya li may wax ni le docteur Blondin Diop mi ngi SOS médecin tey mën na maa seede surtout ak moom ne ko pourquoi tu parles à la personne euh, de la sorte la moo tax ngay wax ak nit ki nii te pourtant y a même pas trente minutes yow yaa doon jooy fii ci kanam pour nañ la dimbali ci sa ci sa jarbaat bi mais yàlla xam na ko ne nañ ko ci dimbali parce que dafa jaboot nangam sangam moom rek lañ ci yaakaar biñ paree ci loolu automatique biñ koy bi ma ko woowee plusieurs appels nanguwuma jël bi ma paree bi ma ko bi ma waatee dafa ma carrément jeune tu me fais perdre yàlla xam na lool la ma wax. keneen kan moo waraat Ousmane Sonko te ñii bokkuñu système bi ay dombal fu mu nekkoon du PDS Déthié Fall fu mu nekkoon du réew mi Khalifa fu mu nekkoon du PS Ousmane Sonko woon na ñu ñëpp du mës a allié ak ñoom tey allié wul ak ñoom su nga ces gens là buñ ñu fontoo président Macky du fi koy jàpp di ko këll këllee c'est le la constitution c'est le garant de la stabilité du pays gis nga stabilité boobu noonu nag ak lu mënti xew yàlla xam na ne jaral nañu suñu bakkan pour que ñu joxe ko ci mbedd mi pour que ce pays là reste stable pour que ce pays là ñu bàyyi ko ci loxoy président Macky Sall pour que mu continuer liggéey bi nga xam ne moom lay defal Sénégalais actuellement. kon yéen gatsa gatsa bi nga xamante ne Ousmane Sonko mi ngi koy wax yéen dañu ko ci fekk si. fekk si wuñ ko ci ay gatsa gatsa ñoom nañu gatsa seen ñoom nañu gàtt sa seen gàtt sa xam nga indiscipline mënul weesu nga taxaw ak le tout le peuple sénégalais di utiliser ces gros mots là yow mii tey bu dara xewul su ma taxawee yow jàkkaarloo yow ne la gàtt sa gàtt sa di nga wax ak man le chef de la république les institutions. taxaw ministre de la jeunesse moo ko commencé. moom attendez xaaral ma wax la ministre de maa ngi koy ziare bu baax a baax kooku c' est un homme très calme c' un homme très discipliné c' un homme très posé xam nga lu mu wax. gatsa gatsa massa massa rek moo ci topp loolu la Pape Malick Ndour wax il a été très clair gatsa gatsa massa massa moo ci topp mais effectivement la preuve mooy gatsa gatsa bi waa keroog bi mu génnee tribunal ba ñu toj fii tëram ba expiré ko dugal ci biir oto yóbbu ko waaw fu mu mujjee du massa ñun caaxaanuñu on travaille ñun réew mi dañu dénk ay mbir ñu war ko liggéey président public si liggéey boobu noonu la nekk. nee naa la pour rien au monde yàlla xam na ne du ñu bàyyi réew mi ci loxoy ay aventurier pour que ñu jël ko bëgg a yàq réew mi duñ ko def sénégale yi na ñu am jëlaat seen courage à deux mains sénégalais yi nañu taxawaat nañu gën a am taxawaay gën a am courage li ñu def le président public koo xamante ni maanaam bi Sénégal sosoo ba léegi li mu fi liggéey amul kenn koo xamante ni mos ngaa liggéey lu ni mel ku mel noonu nañu jëlaat Sénégal tegaat ko si loxo mu amaat beneen quinquennat ci loolu laay invité Sénégalais yi. nañu jëlaat Sénégal tegaat ko ci loxoy président de la République joxaat ko beneen quinquennat mu yeggali chantier yi nga xamante ni moom la actuellement yeggali Sénégal à base ci li nga xam ne moom lañ am ci ay ressources naturelles muy pétrole muy gaz ñu jël ko tegaat ko ci loxoy président de la république mu yeggali liggéey bi yeggali Sénégal fi nga xam ne moom la fa bëgg a yeggale bu ko defee ku ci nekk ci ñun yëg ci sa bopp loolu mooy li am solo mi ngi fi c'est une lettre de remerciement. <laughs> <laughs> oui nii lettre la ko président Macky Sall jox lettre de remerciement. moom la ñëpp di wër. signature bi cachet bi moom la ñëpp di wër ministre yeeg DG yeeg ñi nekk ci ci nguur gi ci kujje gi signature bi moo leen tere nelaw yaa ngi dégg. ah mais yàlla day cëral. bi mu la l'objectif. walla yàlla xam na ne lettre bi gëstu la ma jox ma main sur le Coran. waaw bëgg <laughs> naa kontaan naa bu baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw euh, teeru leen sama kër daf may neex lool macha allah donc euh, di remercier Sénégalais yëpp donc parfois je reçois des menaces même yoo xamante ni gars yi dañ may tànc un waaw mais sunu sunu kii opposition bi ku jógee rek ñoom ñooy ñoom ñooy def yooyu mais effectivement. boo bàyyiwul Pastef boo bàyyiwul Ousmane Sonko nangam nangam jaafu bon mais ñun duñ ay ragal te yàlla rek nañu gëm dee benn la su fekkente ne sunu bakkan dafa war a rot ci combat bi ñuy mëne pour le président Macky Sall ci combat bi ñuy mëne pour le Sénégal wallahi alazim nous sommes prêts pour bàyyi sunu bakkan ci Sénégal ndax au moins bu keroogee suma doom Pape Ousmane ak suma soxna bis bu ñu génnee si mbedd mi danañ mën a siggi à tête haute parce que dinañ ne ah yéen seen borom kër Sénégal la tax mu ñàkk bakkanam donc ce serait une fierté pour man bàyyi suma bakkan ci mbedd mi pour le président Macky Sall bàyyi suma bakkan ci mbedd mi pour le Sénégal parce que président Macky Sall continuer toog fi mooy njariñu Sénégal voilà donc euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare di kontaan bu baax a baax ci interview bi donc euh, vraiment bëgg naa daal macha allah yàlla na yàlla fay leen yàlla na suñu borom def ba seen média bi bokk euh, ci média international yi nga xamante dañ leen di tudd partout dans le monde macha allah. je kon mi noonu Abdou Aziz la indiloon tey agent de santé sami municipal sami national la nekk responsable politique euh, Benno Bokk Yaakaar moom laa dalaloon tey jii ci seen émission bi nga xamante ni saa su nekk dama koy ànd ak yéen ngir lépp loo xamante ni rek actualité la damay dem wëri nit koo xamante xam-xam dafa màcc ci loolu mu ne mun ngeen ma xaar fu nekk que mu nekk politique mu nekk people mu nekk leneen nag leneen xaar leen ma di ngeen ma gis incha moo tax ma leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité bi ko jaajëfal bu baax a baax a baax ci accueil bi kontaan naa baax ñëw naa mu teral ma et tout borom baax la waaye nag daal Sonko dégg